mbokk yi ba tey ñu ngi ci foire bi xam nga euh, ni ko mami waxee sànq am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw di ci jàpp ñi ay yaayam ñi ay magam suñu siste nag euh, la ñuy toogal ah, animatrice bu mag bi sama xarit ci loo loone waaw maa ngi nii rek animateur bu mag bi nga xam ne tubaab fukkaat la tous les temps. Hmm. li tax mën la tous les temps yaa ngi fu te foo dugg rek mu gën a neex. <laughs> nga ñëwaat euh, gunge mami ah comme ni nu ko waxee muy dóor démb présenté nan ko. ñu ngi ci deuxième jour bi tey gars yi nee nan gis nañ ci seen bopp tubaarkàlla. waaw macha allah may nuyu nag euh, fi nu defee jotaay bi salon bu yaanji bi ñu toog di nuyu bu bàcc li nekk nit ku baax na bu bàcc Bathily nag euh, dafa am dàkkantal Nabou Bathily bu yaay puy euh, ma koy nuyu bu baax di nuyu sëram Titi nekk ay nitu valeur waaye nag di nuyuwaat sama doom ji nga xam ni dama koy jox wàcc waayam waaye bala may ñëw ci moom may ñëw ci ayda nitu valeur nit ku marqué empreinte am ci digg réew nit ku kenn yabul yëg nga ni bi rek waaye réew mi moo ko téye amee xam nga lu mu ko teewee. bari na jom nangu naa liggéey waaye ku nit ci réew mi rek ay daal la téye. lim la téewee nag moom fulaak fay daak bari personnalité. ndax loolu nag euh, mooy kàddante ci réew. damay wax am kayit gi mu nekk ci sa jëmm moo ko gën. te Aïda dafa nekk ci jëmmam. bi ci des ma naw ko ndax sama doom ji mu dikk dooleel. ñëw fekk ma mi Evens mu jàppale ko dooleel ko bi ci des euh, ku ñeme dañ laa dee te weq doon la ci mbaam hmm, bi mu dikkee dañ ko kaay ma kaay maay sa yaay may sa mag may sa xarit may ki lay wax lu baax may ki la xam ne maa lay wax defal li nga def foofu la Aïda diggante Aïda ak Mamy toll hmm. Mamy nag euh, xale la hmm. góolu ngu ñu mbay Omar ma ca bayti ma jabel soxna Jóob bi muy dégg daal boobu yi xewul yow tubaar fakal la li maa Malick may samaam ku mu ko may samaam nga sëriñ Mansour rek a ne woon sa maam rek hmm. Samba Kassé sa baay waaye Mansour Kassé bi nga xam ne boo demee diggante di sa tali bu bees hmm. ku ne xam na alaaji Mansour Kassé mu baax nii mooy sa baay hmm. yow mën naa ne waaye sa ndey ju baax ju gore ji nga xam ne tubaar fakal la buñ tollee ñibbi Touba bu ñibbee tubaa kenn di ko gën nga bari jom kon li nga doon rek nga def bi ci des mu doon xale gëm boppam nag ndax foire bii nag euh, ku fi ñëw démb xam ne mami laal na laalaake xam nga luy laalaake réew mi ko wuy si xale yi bëgg ko bi ci des xale yi jaay ba doyal xale yi tëral doomu aadama yi ba doyal yi nee nañ ñu ngi jaay waaw ndax senegal léegi ma wax la leen hmm. dafa am lu rëy xew hmm. Sénégal lu di def danga nga ciy boole géwél moom muy doomu géwél fonk askanam ñëpp ñëw ndax nit ñi léegi li ñu bëgg mooy ngay ngay def benn affaire fekk fa nit ku baax ki nga xam ne gënu ko judd gënu la judd moo waxal la say yu baax loolu la nit ñi bëgg léegi tamam yi ci la nekk mu woote foire na xale yi jënd jënd stand yi ñëw jaay si am personnalité boole ko jaay muy jar jaay muy jar nag suñu ko waxee mooy nekk ci muy dox kon mami démb lii mu woote demb xale yi dañ cee nekk muy dox mm-hmm. bi ci des mooy ñu mayeti ko ba mar mardi déggoo ma de ku bokk ci réew mi doo ko waaye damaa bëgg xale yi nu bàyyi ko xel mu ngi ci biir embouteillage bi te kenn du ko man mbaadu kenn du ko man mi ngi ñëw mi ngi ci yoon bi bi ci des euh, digganteem ak Mame Boye Diao. waaw Mame Boye Diao xam nga lu muy baña ku ko bippe. teguma la de defaluma dara. teguma la de. <laughs> man Mame Boye Diao defaluma dara. waaw ndax man am naa téeméeri gaynde ci digg réew mi. te ku xam ki ma ngem xam ne man ñi ma ngem du du tuutul. bañ naa ko ba man Fama Faye dama di ma pëtt kéwél waaye Mame Boye Diao ku ko bippe mu woo ku ko message waaye maay wax ak damaa toog ci milieu. waaw gis fi mu jaar ak ay nit man toog naa ak nit mu laaj nit numéro am kooku joxu ko mën ko sama yaay moo feebar dama ko bëgg a opérer temps kor bi nga ko joxee ay million damaa yuuxu kon maam booy jaawoo li nga nekk nekk ci yow nag yàllaal sama doom moo tax lu ma mës sa dégg ci yow dama koy wax preuve maa fekk la police bëgg te waxantuwu ma taxalee xam nañ dama dama waxantu maam booy jaawo yow ku la woo nga wuyu ko ku la bippee nga wax déggoo ma de. mais attends Fama euh, bu ñu déggee nga wax lii ak euh, li li Dabaay wax dem ba wax ci ay wax yoo xam ne sax am na tur bu mu cité euh, yaakaar naa Awa Baldé la suma juumul ba wax ne seen diggante c'est fini ndax moom topp na di woo booy Boye Diao tout le temps ci foiram bi nanguwu ko jël nga wax ne moom ku ko bippe rek mu mu mu mu wala man loolu daf may jaaxal. xam nga xam nga digganteem ak euh, dabaay ak ku mu mënti doon man loolu concerné wu ma ndax li tax euh, mooy euh, damay xale waaye dama am baat ci dëkk bi dabaay nit ku baax la nit ku baax la barki dem bi mu tëggee foiram ñi fi njëkk ci laa bokk dama ñëw ànd ay setu Samuel waaye dabaay dama ko naw ngir baam bi fay mu nekk nit ku baax tëgg moom it bisam bisam neex lool hmm. am valeur waaye dama la maam booy jaaw man li ma xam ci moom du lum ma defal man ni naa la maa ngi ay gaynde te man ñi ma ngemb ci réew mi duñu judd jéeri ab sa giroo moo ma ngemb ci réew mi te bi ma ngembe lu ma bëgg mu def lu ma joxoñ mu dagg roqi maska noonu mbaalu daabo ci Amérique Seattle lu ma bëgg mu def lu ma joxoñ mu dagg te ku bëgg ma ku dul maam jaara faam ndax man lay wër honorable député maam jaara faam man mii la bëgg ma bëgg waaye dama la maam booy jaawoo damaa toog mu metti lool ci kilifa nit woo ko ma toog ak moom ma am problème da koo bippe maam jaawoo ni ko coupéel maam booy jaawoo ni ko coupéel ma woo la bi mu ko coupé ma woo moo ko fayal li nga xam ne mooy hôpital ba yaayam def opération ba mu jeex yaayam di dialyse ma gis keneen koo xam yaayam day def dialyse maam baabu booy jaawoo jël ko engagement bi ci des sa xam nga lu ma xam sama bopp doom ji ma jur woo ko mu wuy si ko <laughs> li muy xale-xale hmm. bi mu ko woy du ko wuy si yónni fi dem forte délégation ku gis te mayor micro central bi. waaw ànd koog Salam Ndiaye. waaye nag tubaar fakkaale pëndi bi wuri na nag déggoo ma de lu ñu fànn kenn du ko jeex. kon lan mooy problème bi. xaw ma kaa bi waaye xam nga lu ma bëgg a dégg <laughs> xam nga kaa bi lan la. il faut nga leeral ko woo <laughs> mu wisi ko. Ah. sama doom ji da koo woo mu wisi ko moom. est-ce que sa doom jee taxoon mu bañ a wuyu kale kon. ma déggoo ma ne de man du dugg ci détail waaye boo bëggee dégg-dégg daal dabaay ku ne fekk si na ko waaye mami mii ku ne fekk si na ko waaye bi ci des daal maam booy ma ko xamal mooy bi ko sama doom ji bippee rek mbay da ko bippee rek mu seen chiffre yi ni ko arrêté maa ngi ñëw falaayam <laughs> faramaareen nga bokk yow temps yi seen kër gi bari na coow ñun ñoo làmboo coow waaye coow bu may ban nga dégg noonu ah yéen a décroché maama Kële Ndeye Ndiaye Bana yaa indi ko loolu pour lan la yéen tam. MDR ñu dañoo yaatu ku ne si ñun ma ne Ndeye Ndiaye mi ngi Faramareen de dama ne la rek ku ne xañ na waaye faram Ndeye Ndiaye nekkul Faramareen de yëgu ma ko man yëgu ma ko bokk te man ne yow Faramareen 100 pour waale maa ko ku ko indi da nga gis ñu indi ko. Ah, man yëgu ma ko. maa laaj Omaro mu ne ma maa indi maa jël indi waaw. ah Omaro kon déggu wuñ ba sa loolu yëgu ma yëg ko nekk vraiment ce programme di nga di ko gérer muy jaar sa loxo te yëgoo waxuma la programme de staff Faramaren laa bokk man. Ah, waaw lépp Waly man mi dama sax man maa yaay Waly xam nga tënk na wax Ndeye Ndiaye nekkul Faramaren waaw man maa la ko wax man Aïda Diallo. nekkul Faramaren nekkul Faramaren yëguma ko. kon li wax nag ah, bi ah yëgu ma ko ba yëgu ma ko bokk. ah non man maa ko laaj. maa ko laaj barki démb ci tudd Waly Seck. mu ne ma je l'assume maa ko indi. kon kon xëy na Omar daf ma avisé mais ma gisu ko ma day ñaari samedi maa liggéey Baramundi. waaw vogue dimanche ma feebar. nekk ma foon gaa mais tey damay liggéey Baramundi gisu ko ma day ñaari vraiment. samedi bële passé bi muy yéeg di wax ne fii la bokk moom mbokk Waly la xanaa ne ko foofu. non non man maa samedi maa maa liggéey Baramundi. ni gisuma fa Ndeye Ndiaye ma. bële bi Ndeye Ndiaye bànn yaa yéegee. maa ko liggéey gisuma Ndeye Ndiaye la dem dimanche bi nekk ma fa woon. yógu ma gisuma vidéo dégguma vidéo waaye man ba jusqu'à preuve du contraire nii may waxee yow Ndeye bokk fa damaa ne loolu ko de dégguma ko. loolu jaaxle. contradictoire yi am nii ndax yaag Omaro ku xam na ne ay faramaareen sa ngeen 100 pour cent. sama faramaareen kases sama DG la sama ministre la. waaw mais dama ne la Ndeye Ndiaye nekkul li ma wax waaw danga maa bëgg lëng ma da ko danga maa bëgg lool na yaay bokk nekkul Faramareen awa moo nekk Faramareen ëmb di ba yaar Armand Ndiaye ak Balago Boys c'est tout fa nu nekk waaye xale yi nañuy toog fa nu euh, ndax fi jamono toll soo biis boo ko bëggee dégg dëgg dañuy wax biis waaye dama ni soo biis defantalu rafet la bi ci des mooy xale yi ànd nañu ànd bu rafet te at yëpp ñoo bokk lépp man ku ma xam-xam ni Pape Diouf laa ba mu jeex man Pape rek la ba mu jeex àdduna yëpp xam na loolu Pape Diouf laa gëm sama frère ak bébé baas bi ci des mooy Wally Seck dama ko bëgg li tax ma bëgg ko mel ko xale yëpp bëggee daa xew Pape xew nanu bàyyi dem lante bi dikkalante bi Sidi Diop sama doom la xale yi na nanuy toog fa nu ne toog fa nga ne day tax nga am valeur toog fa nga ne day tax nu weeg la waaye soo wàccee sa ànd dem ànd borom soo yeggee doo am personnalité doo tolloon dara bi ci des ba ngaa yéeg dem après da ngay da ngay da ngay dellu ginnaaw xam nga lu dellu ginnaaw ka fa nekk su gëmee boppam da ngay làqu xale yi nanu bàyyi dem demlante bi ak bàyyante bi surtout ba ci xarit sa dafa am te jamono yàqu na na ñuy toog fa ne. waaw na ñuy toog fa ne. na ñuy toog fa nu ne. waaw seeneen. seeneen xam nga lu muy yóbbu. dellu ginnaaw. ak gaaw a fay. man Bamba Demba de fa ma nekkoon juguma fa jeeg bi rek giróoma di